Tape 3 W suivi de Colo Sénégal. D'accord. À école au Sénégal. C'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal. Les leçons sont beaucoup plus détaillées. Wama Hawa. وما هوى الغار من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عمي mu ne ko ak lépp li ma sa xew ak lépp lu am ak lépp li nga xam ne jot naa xew ci xunti ma kiraama ya fa yàlla def ak ngëneel yi ko yàlla defal ci boor bu nekk nag ci boor bu nekk waaye ak la fa dal yéeféer yi ndax yéeféer yi defuñu lu may bi mu leen wóoree ni sallallahu alayhi wa sallam du moo nekk ci néeg bi Ali ibn Abi Talib la ndax yeewu nañu rek kenn ku ne xool sa bopp ndekete yoo giir bu nekk waxambaane wañ fa jëloon ni bu sallallahu alayhi wa sallam génnee ñëpp tëbandoo benn yoon rey ko bu ko defee deretam tasaaroo ci giir yi banu Haasim du ñu def dara lu dul may laaj dëye ñëpp daal di leen di dëye moom mu génn àddina ñu noppalu ci mbiram xalaat bu ñaaw bi lañ tëraloon borom bi tabaaraka wa taala ni wa makkaru makkaran wa makkar makkaran ñoom de dañ doon fexe may fexe waaye fansur kayfa kaana aqibatu makrihim inna damarnahum wa qawmahum ajmain Seydi Hadji Malick ni wayam kuruna wayam kurullahi wallahu xayrul maakirina mu ne dañ doon fexe de waaye yàllaay fexekat bu mag bi nga xam ne moo leen dàq fexe waaye sallallahu alayhi wa bi muy génn sunu borom ma ngi ko jox ndigal ni ko jàngal suratu yaasin mu jàng suratu yaasin am na ñu wax ni ma nga yem ci fa ahsaynahum fa hum laa yubsirun daal di koy tefli ci ngëbu suuf yuri leen ko ñoom ñépp fekk ñu ngi tëdd wër buntu néegam bi baamul fu mu jaar mu jéggi leen jàll sotti leen suuf sax ba tey xukamaa wuy wax nañu ni suuf su mu sotti woon ñoo ñu tëddoon ca buntu néegam ba ko suuf sallaaloon bésu keroog rek faatu nga keroog xasootu badrinil kubra di bés bi nga xam ni mooy bés ba yàlla terale lislaam huwa yowmul furqaan alladi aada allahu wa ahlahu wa addala fihi shirka wa ahlahu maa qillati adadi almuslimina wa kasrati almushrikin maa ma kaanu fihi min sawaabixi alxadiidi wal uddati alkaamila wal xuyuli almusawama wal xuyalaa zaida wa lidalika amtana allahu ala almuminin li qawlihi taala wa laqad nasarakum allahu bi badrin wa antum azilla keroog ponkal yooyu waroon néegam ba ni su génnee ñu rey ko suñu boroom jox ko ndigal mu lee leen ñu ni ñayi di nelaw mu sotti leen suuf bi ñu leen ne yonent bi dem na ba ñu fa tëddee ban jant baa leen fay yee ñu biddanti ñoom ñépp fekk dem na bu yàgg moom ba génn dëkk ba toog ci xaaru sawri ndeysaan ba ñu ne bëreet ñu ne leen dem na ñu ne déedéet demul kay ndax nun romb nu fii nun ñëpp noo nga fi woon mënunoo nelawee noonu kenn ko nekk ñu la waaye suuf si ci sa jibi mbaa suuf si ci sa bopp bi nag gaa yi faxas too ko yëlbu ah doy na waar dem na de sallallahu alayhi wa sallam loolu dafa bokk ci ay kéemtaanam ku mu àndaloon ci xonti moom abubakrin siddiq su sirqi wal wafa rafiqu nabi mustafa xara an moom la say eh, suñu maam seexul xadim wax nee na àndandoom jëddi rafiquhu kooku moo doon àndandoom kooku moo doon zani is nayni is huma fil xaari alquran ko tudd ne ah kii de moo ñaareel ñaar ñi ñooy ñaar ña àndoon kii moo doon kenn ka mooy abubakrin siddiq rafiquhu sa saani is nay ni moo ñaareel kenn ko ba ñu mat ñaar is huma fil xaari ñoom ñaar day ñoo dugg ca xunti ba wa yaqulu li saaxibihi laa taxsan inna allaha mu ne ki yàlla yónni woon sallallahu alayhi wa mi ngi doon wax Abu Bakar ni Siddiq di wax kenn ki naan ko bul jàq bul tiit yàlla la nu àndal yàllaa ngi ànd ak nun yàllaa ngi ànd ak nun sallallahu alayhi wa bi ñu demee bay dugg ci xunt mi la ko Abu Bakar ni Siddiq ne taxawal mu dugg Aboubacry ah, Siddiq dugg ci xunti mi xool lépp lu fi lu war a gaañe mu randal ko puus ko ba mu des mennam pax pax mi rëy lool si ah, Siddiq di xotti mbubbam di ko sànce pax ma di xotti mbubbam di ko sànce pax ma doomam des ca kër ga Asmaawu bintu Aboubacry moom itam di toppatoo ñam wu mu leen yut ak nu mu ko def fu mu ko ëmb booba mbuus yi bariwul bu ñu defaraan mbuus mbuus mu jóge ci aw bëy lay doon woo xam ne ndox lañ cay sol wala dara ay duñ cay denc waaye du woon mbuus yoo xam ne dañ koy mën a defar di ca def di ca def ay bagage di gën a bari waxuma la ak bu toll ni rek super bu ñu war a mën a def ñam mu ñu yot ñaari nit amul waaye dafa dal di xotti yéreem ya mu soloon moo taxoon ñu tudde ko saatu nit a xëy ni boroom ñaari takkaay mu ci yirem dal di koy takke ñam ba mu dëgër mu di len top di leen ko yott fa ñu mën a nekk waaye ni sidi di yirem yoyu xoti mu ba moomu di ko saañ ca di ko saañ ca ba sax pax mi mu dal di tok bi mu toge yit ci pax mi ci tankam sallallahu alaihi wasallam. So mitam son fa bopam tek ko ci tanku abakari ni siddiq dal di nelaw bayaag rek sallallahu alayhi Wasallam. sallam rangoña abubakar ni siddiq di tok ci ko mune waw ah waw li lu mu don mune ko lu dara dafa am rek eh, daaba joo jo xamni mu ngi ci bir pax mi bëgg genn may bañ mu genn di la lor ma tek ci kawam sama tank ci pax mi waye jotna genn ba jotna mat sama tank bi sallallahu alayhi wa sallam laaj ko fi mu ko mat mu dal di ko koy won walla maw yi ñu bari dañoo wax ni jaan jooju da ko ni man toog naa fi nangami junniy at wala nangami téeméeri at di xaar xayru xalqilaahi ngën ji mbindeef rek ngir bëgg koo siyaar man dama doon siyaar si rek kii dox sama digganteeg moom loolu moo tax ma màtt ko waaye sallallahu alayhi noonu la continuer daanaka ñaari at yu ñu toog mbaa at ak nangam bu ñu toog rek ndeysaan mat matu jaan jooju songaat abubakrin siddiq dangar jooju songaat ko sallallahu alayhi wa sallam léemu waat ko mo caatal ko mu wér waaye at mi sallallahu alayhi wa sallam génnee àddina at ma ca topp wala ñaareelu at ba ca topp jaan ja métti dangari jaan ja sonalaat abubakrin siddiq bisatu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci la génn àddina moo tax ñu tuddee ni moom itam ci martyre yi la bokk ndax ci mat matu jaan jooju la ko fi yàlla jëlee te dafa bokk ci ku ñu tudde jahid mooy ko faatu ci mat matu jaan waaye xunti moomu bari na lu fa xew moo tax mu ni wa ma hawal gaaru min xayrin wa min karamin wa kullu tarafin min al kuffaari anhu xammi fa siddiqu fi lgaari min arami ñii toog gi ñu toog ci xunti mi làqu googu ñu fi làqu taxu leen taxul waa si ñoom naagu ba tey ñu ngi jóg li leen dal ca kër ga sotti leen suuf dem yoonam googu gàcce doyu leen wolof neen na gunóor balaa waññeeku daj waaye yow daf daj ceeg ni baa doolu du jub gàcc mukk te yeggu ca waaye lii taxoon nag ñuy wër gàcce googu yéex nañu caa jot sax nag ndax bésu keroog jotuñu ca ndax gisuñu rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam dañoo wër ba ñëw ba ci xunti mi la maam Seydi Hadji Malick doon woy ci xilaas nee na jargoñ baa fa njëkk lënd ba ñu toogee ci kaaraange borom bi tabaraka wa taala an ka boota njëkk a ñëw moom jargoñ ba daal di lënd dem yoonam ba tax ñëw dal di aas dal di tàgg dal di te mbala tàgg ma yàgg na fa waaye ba ma moom dafa ñëw dal di nen duma wuri xalxam mi topp petax ma nen fa ankabut ba ràbb fa lëndëm gu woyof lënd gu lënd yu woyof yooyu mu fa mu fa mu fa ràbb waaye bi ñu rupp tëleeg seen wër ba yegg si ba ni dër ci buntu pax mi ci buntu euh, euh, buntu grotte bi buntu xunti mi xool xool xool ab bëkk ni si dex nee na ci booba de bu ñu xooloon seen tànki fas yi ci suuf sax daanaka gis nu waaye xooluñu xool ñi ngi xool kaw kaw xunti mi rek ci kaw rek la ñu yem mu ne bare waa na gis ak koo xam ne la muy gis jege ko mu jege ko moo tax mënu koo gis dem na ba ci xefi doom adama xefi doom adama ni ko jégué ni mu jegee bëtam yi motax do gis kenn ku jàkkaarloog ay xefam lamb la ci am mbaa mu wuti seetu waaye ki yalla yoni won sallallahu alayhi wa sallam toog ci xunti mom gaa ñew ñom ñepp kenn ku ne wërna na ma fil khari min arima mi xunti dal dara neew fi gorot bi dara nekk fi loolu dal ñu mujj di wax ñom ñepp ñu dellu si makka nak ne nañu wajal képp ko xamni indil nga ñu bop muhammad muy dund mbaa mu dee lépp borom burda ngi wax de muhammadul busri ngi wax de neena na sidqoog siddiq ñe ca xonti ma nga xam ne sonn ñu yoqatuñu tiituñu ndax abu bakr ni siddiq mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam sallam teel na wax wax ni neena ko bul tit bul yak motax tax na yenn borom xam-xam yu ni won abu bakar jaxlena dafa tit dafa paniquer mané ne ah déedéet abakar bu jotoon a tiit kon sallallahu alayhi wa sallam du ko ni la tahsan bul tit bul jaq bul jaq njàqare ak tiitaange du ben ki jaq titagul ki jaq dafa yaagar ni tiitaange ngi ñew wala lu koy lora ngi ñew te lolu bu ñewé xeyna ragal man na dugg ci lolu loolu lay jaq waye sallallahu alayhi wa sallam moom day ben sax mu jaq waxuma la yegg ci tit waye bul jaq ne defe ni dina yegg ci suñu kaw bul jàq defe ne loraange dina yëgsi ci suñu kaw dara du yëgsi suñu kaw yàlla moo ñuy sàmm inna allaha maana yàlla la ñu àndal laa taxsan inna allaha maana lii la ko sallallahu alayhi wa sallam yàlla di ñu ko nettaliwaat ci alquran Abubakar nettaliwul lii de sallallahu alayhi wa sallam yàlla yónni woon nettaliwul lii de waaye yàlla moo ñu nettali alquran ni is yaqulu li saaxibihi laa taxsan inna allaha maana bul tiit mukk bul tiit bul jàq lu yàgg-yàgg bul tiit bul jàq ndeysaan di ko nettali ci suñu ustaas bu baax ba yàlla na ngërëmul yàlla dolli ko ci moom yàlla na njéggalu yàlla dolli ko ci moom yàlla na suñu borom def seen rawdu yee mu nekk rawdaatu min riyaadil janna ustaas Ibrahim Mahmoud Diop ci pirim laa tax san moomu ndeysaan euh, Abu Bakri ni Siddiq ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci xunti bi wu di joge ci kër ga di ñew di len may ci lek len yor ci lek di delu ba tudde ko saatu ni tàqay bi waaye nee lolu mo doon sen jort zanu alxamaama dañu jorto wonne bi pitax mi wa zanul ankabuta ñu jorto ni bi ala xayril bariyati ci kaw ngeen ji def sallallahu alaihi wasallam dana ñu fa rab sen lënd gi wala ñu fa nen dedet wala mu xam fi واي وقاية الله أخنت عن مدعفة من الدروع وعن عال من الأطوم من وايدا وخمولني كارانجي يالا تبارك وتعالى أكياوم كمسام تأرلا تأمبلا تييرلا مو غنى فور مو غنى ريش تاتا يوني لو دوغل مو غنى ريش بالي لا لاق مو غنى ريش فوني لا اج اك فوني لاق لاقال mo gëna ris nganna yu la wër mo gëna ris mo gëna for garde corps yo xamné ñu fat tëraj lañu ta bari ngànnaay yo xamné dañ la fété kaw ak suuf di la ar di wër sa tata ba kenn du mëna a ci tata ji waxuma yegsi ci yow waye wër sa tata ba kenn mënu fa yegsi lolu karangel yàlla akhnat moko gëna for an mudaafatin an mudaafatin min ad-duru'i wa an alin min al utumi ما سامني الدهر ضيفا ضيما wash أي تجرت به إلا وتلك جوار منه لم يضب xunti moomu gaa yi xaddi nañu foog ni sallallahu alayhi wa sallam munu fee nekk ak yii foog ni bu ñu fi duggoon moom lënd gi dana dañ kon danañu bëtt lënd gi jàll foog ni bu ñu fi duggoon danañuy joggi ci petax tàggum petax mii mbaa danañu ko fël waaye fii nit xaju fi munu fee jàll dem waye fekk na karange yalla mo len mag di ba laq seeni ba seeni ba mu gis ñu ko delu si ñu ma ka nak tok dal di ni kep ko xamni man nga indi muhammad mu dund ba mu de amel nañ la andari wurus andari wurus manam ci amel nañ la kilo or wala kilo jama wala kilo la fa gëna serre képp koo xam ne mën ngaa indi bopp Muhammad mën ngaa indi Muhammad muy dund mbaa mu dee sa àndaari wurus a ngi ni taxaw yi doon jàngal yal na yàlla fayal ñu ko seral teraayam teral ko ci bàmmeel boole ko malaayika yi yërmande yóbbu ko ci barsàq sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te di Moustapha Guèye borom yàlla rek a xam bi ñuy jàngal xamsiya ba ñëw fii di ñu jàngal burdu ba ñëw fii doon wax ni keroog bi waa màkk taxawee ni ko indi Muhammad muy dund mbaa muy dee sa àndaare wuru sa gi nee nee na mbër mu sippi muy doon wax suraaxate ibnu malik al muddi jéy ne mana may dem man mii tey may am loola kenn xamul ñaata million la ci jamono booba léegi sax for na kilo or seer na waxatuma nag jamono booba mu ne bi suraqata ibn malik al muddi mana war fasam bu gàtt kawar wa fas yéene daw rek dabi kan dabi rasulullahi salallahu alayhi wa sallam ak abubakrin siddiq waye bi mu dawee ba seen leen abubakar ni ko ah dafa melni de amna luy daw di jëm ci ñun mu ne ko dalal rek waye bi mu dawe ba yegg fi ñoom mu ne ko suraaxata suraaxata tee ngaa wuyu woote bi yàlla bi dugg ci lislaam te xam ni ci la sa ngëneel nekk waaye li nga bëgg mënoo ko am moo jot ma waa Quraysh may dund mbaa ma dee kooku mënoo ko am léegi nag li ma la gisal te mu gën ci yow mooy nga dugg ci diine lislaam ji wuyu woote yàlla suraaxata ni ko déedéet yow moom naa mu ne ko dama la yóbbu ca Quraysh rek ñu fay ma li ñu ma digoon waye bi suraaxata ni beuri tout si bi sallallahu alayhi wa sallam daf ni suuf jappal ma suraqata suuf ni tëri ke wo mi faswa suraaxata ni rep ba tankam du gal ci suuf si suraqata taxaw di ñaan di ñaan yonent bi di ñaan yonent bi ni ko bayima soma baye day man dana delu ci Quraysh te doolu ma dotuma la dab mu ni suuf baye suraqata suuf baye suraqata bi suuf bàyyee suraaxata yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxat ko lim koy wax ni ko xanaa suraaxata gëmoo yàlla tey ngaa gëm yàlla nga gëm li nga gis bok jot gis ci ay kéemaan nga ñibbi dem sa yoon te bayyi ma ta xamni mëno ma maa wa waa Quraysh yàlla may aar suraaxata ni ko duma la bayyi te yótuma la wa Quraysh suraaxata gëddaat yonent bi sallallahu alayhi wasallam suuf jappal ma suuf te tànki fas wi di wann wuti biir suuf ba naa wannaale tànki suraaxata yi ba mu ñëw ci óomam yi mu xam ne fas wi day dem te moo ciy topp suraaxata yuuxu ñaan sallallahu alayhi wa mu bàyyiwaat ko am ko Ici au Sénégal Tu peux facilement avoir accès à École au Sénégal